wa talaasim al abraniyati wal aqsaami al malakutiyati wal asraari saryaniyati wa tasaabiix al yunaaniyati ilaahi bi rafiici alsamaai wa quwati al ardi wa haybati alshams wa bi sirri al acdami alladi bayna alzulmati wannuur yaa man kasaa quluubu al caarifiin min nuuri al uluuhiya wa yaa man arsala riyaaxa nushran bayna yaday rahmatihi ilaahi salli ala sayyidina Muhammad salaatan taftax lana biha abwaaba alrida wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alcharri wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir ayoha almushahiduna alkiram fi daxili sénégal wa fi xaariji alwatan nuraxibukum kalaada fi kulli yawmi aljumca wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum ha nahnu alyawma fi intidaarikum bi diqqatin wa surur wa baad naqulu lakum salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci àjjuma ji fu waay mën a ne di ziyaara kilifa diine ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara ñi ci hôpitaux yi te wér di yàlla na leen yàlla delloo seen sago di ziara ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal ñu ngi dellu si mbokk yi ànd ak leen ndokkeel eh, di ñaan yàlla jàppale ñu ñu dugg ci màggal gi ci bismillahi rahmaani rahim waaye it jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin su ko defee ñu bàyyi xel loolu euh, yàlla jàppale ñu ñu dem ci ci jàmm ñëwaat ci jàmm incha waaye dañuy wax mbokk yi rekk fu waay mën a ne nañ dem Touba màggale ki nga xam ne kii moo ne woon sama bés bi fu waay mën a ne màggaleel ma ko ci xar nag béy giléem ak noo ko mëne taaziman li yawmihi al muy 18 safar ñu fas yéene ànd ñun ñëpp jëm Touba li ziyaarati Cheikh al Xadim waaye di ziyaara xasaay di ma fa bàyyi di ziyaara jumaa ji ziyaara mbokk yi ziyaara olama yi fa nekk ñaan yàlla taasu ci barke bu ma fa bàyyi incha allah ñu ñëpp nañ ko teewe ji incha allah waaye mbokk yi dafa mel ne am ku nekk ci ligne bi dinañ ci ñëw léegi ci kanam tuuti euh, salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. waaw soxna si. salaamaaleykum ah, papa. maaleykum salaam wa ah, ma gént bëgg ah, sama benn xarit ma nekkuma Sénégal sama benn xarit bu ñàkk dafa gént fan lu ma sama biir bi metti nee sama biir bi daw may kabine sama yaram bi daal sama tànk yi nee na may kabine nee na jooy. ci cabinet di cabinet kii bi fàq sama tànk yi ak sama loxo yi nee na may cabinet ba mujj gi nee na cabinet yi mel ni ñuy ànd ak deret di génn. Mm-hmm. waaw maa ngi jooy ma géntaat beneen bi tamit ci suñ Abdou Karim Mbacke euh, bi mu nekkee jeune ak bi mu nekkee mag mi yëpp ma gis ko ñu ñëw nii toog ñuy waxtaan mu jël loxoom teg ko sama bopp di ma na ni ma yow di nga dem ay jamono yi jamono ngi ñëw ci kanam. ñu bëri mhm. dinañ ñëw di leen di leen di say soxla ma gis ko nii fan yi laa ko génn. Mhm. waaw loolu moo nekkoon li ma génn. waaw ñu jël keneen ki ci topp. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw mbokk mi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar alhamdulilah. alhamdulilah. bismillah. ma doon laajte bi ci eh, gént rek laa bëggoon laajte. bisimilah. allo. ah bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw dama dama géntoon benn jour mel ni sama benn doom ma taaw. sa doom. waaw. Mm-hmm. maanaam mu war mu war ndaam. Mm-hmm. muy daw ba daaneel ko. waaw beneen bi ci des dama gént mel ni dama jiitle sama na war benn fas. ma wàcce ko ci fas yi war ko li ma li may dox yàgg ma gis mel benn gaynde bu nekk sama kanam di waaxu dem yor ngeen bu gudd ma ngeen soo fas tànk fas xaw koy laal daal tuuti rek waaw loolu daal moom laa gënt mu jaaxal ma lool. ba baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah waaw jërëjëf. jërëjëf shukran sanaati bi zalika xaalan incha allah euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. waaw soxna si bisimilah. allo. allo oui. waaw bisimilah. waaw Fatou Gént. Hmm, waaw. maa ngi lay ziare. yàlla na yàlla nangu ziara alhamdulilah. allo. waaw baat be bu yëkkati ko woon ci kaw ñu déggante bu baax. waaw ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah ah, allo allo. allo. waaw soxna si bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, sëñ bi fan yi damay gént gu ma jaaxal torop. waaw. damay gént ñu may maye may dem di sëyi. Mm-hmm. Ah. te tamit. ñu te tamit sama rakk yi dañuy gént. waaye dañuy nekk di daw di tiit ci lal bi. sa rakk yi. waaw. waaw loolu la. ñu jël keneen ki ci topp. ñu jël keneen ki ci topp incha allah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ah, góor ñi ngeen def. ñu ngi fi sant yàlla. allo. allo waaw. waaw ah, man de dafa am benn gént bu ma bëggoon ku ma ko firi. bisimilah. waaw ah, dama géntoon ma voyagé dem Gambie. Mm-hmm. léegi bi ma demee fi ma taxaw na xamatuma ba dëkk la. nga dem Gambie. waaw. Mm-hmm. léegi bi ma demee fi ma taxaw xamatuma ba dëkk la ma koy laaj. Mhm. te bi ma koy laaj ci biir laaj bi am ay booy yu ñëw agressé ma jël sama saag. Mhm. léegi may xeex ak kenn ba jàpp ko nag yóbbu ko ci benn mbooloo. Mhm. takk ko fa ñu takk ko ci genre saaku teg ko fa ma dem di wëri saag bi. bi ma demee di wëri saag bi euh, fi ma takkoon gaayam bi bàyyi ko fa. xamatuma fa gisuma saag bi tamit. Mm-hmm. léegi ma dajeeg ay xale yu jigéen ma ne leen ça va ngeen def dama bëggoon ngeen dimbali ma ci paas ma dellu Sénégal parce que dama war a ñibbi affaire yi. Mm-hmm. léegi ndaw si ne ma man dégguma français ma ne ko man de ba léegi ma waxuma yow français après ci laa yeew. Mm-hmm. waaw léegi beneen bi mooy. Euh, ñàkk gént lu bari wala ngay gént di ko fàttali laa bëggoon nga jox ci ay tegtal la moo koy waral. ñàkk gént. waaw lu bari man dama dul gént lu bari mais wala bu ma géntee ma fàtte ko. du ma mën a hmm. expliquer gént bi quoi. Hmm. tere laa daal laay jàpp sama gént. da nga bëgg a xam lu tax doo gént. waa wala bu ma géntee lu tax du ma koy jàpp. Hmm. waaw tere daal laay jàpp sama gént comme li ma la expliquer nii. waaw. Ah, baax na. dinañ ci ñëw léegi incha allah. baax na jërëjëf. jërëjëf. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum allo. oui allo. waaw bisimilah. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi ñoo ngi ziare. yàlla yàlla na nga ziar. waaw euh, sama soxna moo am ngeen doon mu xaw ma jaaxal lool. sa soxna. oui oui. Mm-hmm. moo tax ma naa woote. nga dalal suñu xel. Mm-hmm. nee dafa gént. Mm-hmm. Euh, toll ab diggante. Mm-hmm. nekk ci wetu géej gi. léegi ba mu ci nekkee vagues yi di ñëw ñaari jën di ñëw ci ci côté vague bi muy dellu mu daw jàpp ñaari jën yi teg ko ci côté am. misk tuuti biiram di metti waaw ba am benn soxna bu nekkoon ci wet gi naan ko soxna si dafa mel ni dafa am lu lay metti mm-hmm. mu ne ko waaw suma biir mooy metti mm-hmm. léegi soxna si yóbbu ko hôpital mm-hmm. bi mu àggee ñu ne ko pour accoucher la pour am doom la léegi euh, mu ne leen mais comme naa biir bi matagul ba may am doom ñu ne ko ah pour am doom léegi bis tuuti ci la am ñaari doom yu góor. moom mu am ñaari doom. le mu am ñaari doom yu góor. Mm-hmm. léegi bi bi bi bi ñu demee ñëwaat léegi biram di mettiwaat mm-hmm. ñu ne ñu ne ko noo des na. Mm-hmm. léegi ci la amaat benn doom bu jigéen. encore muy ñetti doom. léegi mu accouché waat encore beneen doom bu góor muy ñeenti doom. Euh, léegi nag nee na ci diggante boobu man ni ngi may woo man nga xam maay borom këram. waaw. Ah. mais ñëwuma te samay mbokk amul kenn ku fa ñëw. Mm-hmm. léegi wane nañu pendant ñaari fan ñetti fan nanguwu ma faa mm-hmm. léegi ban photo doom beeg lépp yónnee ma ko moom mu dem ci këri mbokkam mais loolu lépp man ñëwuma. Mm-hmm. léegi ba fa amee ñeenti fan juróomi fan moom laa fa ñëw mais bi ma ñëwee nag ñoom dañ maa mere bi ma nuyoo kenn fayu ma. léegi nag may leen comme que noonu la man damaa ñëw pour samay doom. Mm-hmm. léegi ci biir gént gi ñu nan ma bu fekkente bi ne doom yi màgg na nga jël say doom mais ginnaaw ay xale lañ léegi bàyyi leen fii ban màgg mais diggante moom mm-hmm. nag moom mi ci jooy jooy net ndax amoo naqar ci dama ko wax. Mm-hmm. léegi ma bëggoon a xam ba xam loolu ñu ngi koy. dina ci ñëw léegi incha allah. waaw incha allah jërëjëf. jërëjëf. shukran sanaati bi zalika xaalan salaamaaleykum. allo allo. waaw. allo. allo. waaw bisimilah. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñoo ngi ziar. yal na yàlla nangu ziara. mais dafa am gént bu ma bëggoon a laaj. Mm-hmm. ma ne ma géntoon jaan. Mm-hmm. jaan bi bi ma ko géntee ma tëdd mag sama xale yi ma gént ñu ma gént ko ñaari yoon mu benn bi xale yi tara alxuraan mu dem beneen bi ci des bi mu ñëwee damaa def muuma. Mm-hmm. waaw loolu laa bëggoon a laaj ba xam lan la. Mm-hmm. beneen bi moom xale yi dañoo tari alxuraan mu génn dem beneen bi ci def ma sama doom bi ma naan ko yéegal ci lal bi mu def ma mu mënatumaa wax ak moom. Mm-hmm. waaye màtt ñu def ñu dara noonu rek laa ko gént mu dem. waaw loolu laa bëggoon laaj ba xam. jaan bu mag la wala bu ndaw. jaan bu mag la bu mag a mag kay. ca xaw a weex. baax na dinañ ci ñëw. jërëjëf shukran sanati bi zalik incha allah ah. xaalan nahnu fi intizaarikum jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum aleykum salaam waaw soxna si ñu ngi ziar indi ñu ngi yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah waaw dafa am jënt gu mhm, bisimilah waaw bisimilah ñu ngi lay déglu ndax man damay faral di gént. Hmm. sama bët yi day gumba. fii ne damaa gént démb suñu toogoon di jaay concombre ak beñe ci benn place fa la ma gumba bi dalee. léegi bi ma hmm. dalee ma dem ci borom bitig bi borom ko pour dimbale ma bi sama bët bi nag sama hmm. léegi nag beneen gént bi di topp mooy. boobu damaa dem si benn euh, borom bitig bi may faral di jëndeel ma dégg rajoom bi di wax. léegi ma dégg ci sama benn mag bu jigéen. ma ne ko ah borom kii di wax RFI RFI de sama mag la ñoo bokk ndey ak baay ma toog noonu di ko déglu après ci laa yeewu. ñaari gént yooyu daal laa bëggoon nga dimbale ma ci. waaw dinañ ci ñëw incha allah daa ñëw ci gént boobu xaalan incha allah 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. nahnu fi intizaarikum salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si ñu ngi lay ziar. delloo ziar papa ji. bisimilah. waaw man de. Mhm. daa am gént bu ma géntoon mu jaaxal ma. Mhm. dama géntoon nekk ci biir ndox. fekk ci kaw suuf laa li ko toog après ma pëtëx dugg ci biir géej gi. Mhm. léegi ba ma duggee ci biir géej gi ma tasanteeg benn requin fekk maa ngi yoroon paaka. ma xar requin bi en deux. Mm-hmm. yéerewaat paaka bi ànd ak sama mag ak sama ñaari rakk ñuy dox ci biir ndox bi. Mm-hmm. di dox ci ndox bi ba génn comme ku nekk ci biir suuf nag ba ñuy dox. Mm-hmm. ñu dox ba génn ci ndox bi. ñu daal di toog dem suñu kër. te ba ñu demee suñu kër fu ñu taxaw rek ndox mi day day génnaat ci suuf gi te ball ci suuf si te géej lay nekk. après ma tiit ci ay nelaw ma yeewu. ndox xam na seen biir kër la doon génne ndox. fi ma toogoon moom ci tefes bi ndox dugg ci bi géej gi ci tefes laa toogoon. Mhm. ci tefesu wante ba mu jógee ci géej gi ba génn ci géej gi ba ñëw sama kër. Mhm. ndox géej gi dafa nekkaat ci suufu kër gi. Mhm. ndox bi di ball di balluwaat. waaw léegi beneen gént gi dama gént ay xar mu njëkk gént ñaari xaj. xaj yi góor ak jigéen la ma leen di raay noonu. xaj am mhm. na yàggul dara xaj xaj yi ak xar yi fekkante fa fekk maa ngi taxaw ñu wër ma ba may dugg ci biir kër gi ñu duggandoog man mantam ci biir kër gi. ay xaj ak ay xar. waaw. Mhm. mais xaj yi màttuñu ma kiiwuñu ma. Mhm. maa leen doon raay defuñu dara. waaw boo mujjee gént bi ci guddi nag may xar boo xamante ni dañ ko wasin bébé bu bees. mi ngi tilim beeg yépp ma daal muy wàcc suñu escalier bi a xar bi moom léegi am ci gént gi ku may laaj ne xar bi kenn mësu ko nettoyé wala piqûre ko ma ne ko déedéet mu ne ma waa baax na après hmm. yàggu dara mu yee ma hmm. waaw xaar ma paas la sama yaay mu expliqué la géntam hmm. allo waaw soxna si salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah jàmm rek man de sëñ bi fan yi damaa gént dof mu ñëw fekk ma ma toog maa ngi toog ak ay mbooloo ni ci buntu kër gi dof bi daal di ñëw rek song ma ma daal di yuuxu ma ne yéen du ngeen ma atte atte leen ma balaa dof bi du ma gaañ am benn góor boo xam ne suñu dëkkandoo la mu mhm. gees ma daal di du mooy na le mhm. song ma léegi nag après mu am ñaari xale góor yi doon romb di dem séen daal di ñëw tàqale la maa dof bi mhm. daal di dem ma toogaat bu mu yàgg ci buntu kër gi ni ma ak sama borom kër am beneen dof boo xamante ne dafa ñëwaat romb di dem di ñëw di romb di dem di ma xool ma ne sama borom kër gis nga kii yaram bi de neexul xoola ni may xoole nee rek mu ne ma jógal dugg ci biir kër gi ma dugg mu daal di dugg topp ma waaye moom defuma dara léegi nag loolu jaaxal ma ne woon dinaa ko laaj ci jigéen xaaral allo allo ñu ngi ñu jël keneen ki ci ligne bi euh, salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. allo waaw. waaw bisimilah. waaw sëñ bi dama dama gént maa ngi nekk marché. Mm-hmm. léegi maa ngi nekk ak sama doom bu góor. Mm-hmm. léegi ma nekk di wër sama doom bi sama doom bi dafa réer biir marché bi ma nekk di woo laa ilaha illallah turu yàlla di naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Mm-hmm. te marché bi mu ngi xat. léegi ma taxaw benn place rek di naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah loolu laa bëggoon ngeen firil ma. dinañ ci ñëw léegi incha allah. shukran ñu eh, jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo. allo. allo. waaw soxna si bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw paa bi nekkoon TFM laa bëggoon waxal. allo oui. waaw bisimilah papa da ngeen fi sant yàlla. waaw ñu lay ziare bu baax. allo yàlla yàlla nangu ziare waaw. waaw papa ma ne dama am lu ma géntoon. Mm-hmm. waaw dama. dama géntoon ci ginnaaw. Mm-hmm. dama géntoon ci ginnaaw. da ngay wàññi da bi da ak moom di añ. Hmm. léegi bi ñu añee ba pare ma daal di koy may ndox. Hmm. waaw xaam wàññi télé bi. Hmm. voilà léegi dama ko may ndox. waaw maa ngi ko gént nag ci photom boobu nga xam ne dafa muuru. sol mhm. jamput bi loolu ci ginnaaw la. Mhm. mais nag euh, démb dama gént. Mhm. dem ci benn place boo xam ne daal nit ñaa ngi may romb. mais dama fa teg si wu di léegi nag loolu jaaxal ma trop parce ci maanaam ci place publique la mais dama doon sangu nit ñi di ma romb. bu léegi nag ma rus ma ne man lan moo waral man. mënumaa dem ci douche ma sangu ma ñëw fii di sangu may sangu nit ñi di ma ruus di ma ma may may sangu nit ñi di ma romb ma ruus nag ma ne man de. Hmm. am naa ne beneen yoon moom lii dootuma ko defati mukk mukk parce que damaa mujjee di nëbbatu di nëbb sama awra yi di nëbbatu. léegi nag loolu jaaxal ma lool lool ma ne woon naa woote papa ak ñoom indil ma ci tuuti leeral. Hmm. dinañ ci ñëw léegi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw mbokk mi ñu ngi lay ñoo ngi lay nuyu di la ziar. yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah. Ah, yàlla yàggal la fi lu yàgg sax. yaa rabbi amiin. alhamdulilah dama bëggoon ah, sa numéro mais dama lay wax sama doom dafa géntoon ah, dafa daanu si teen. sa doom. waaw sama doom bu dafa bu jigéen dafa daanu si teen ak doomam. Mm-hmm. léegi nag mu génn si teen bi mu bàyyi foofu doom ji mu duggaat ci teen bi génnawaat doom ji léegi ñu yéeg ba si kaw. xamuñu buntu fu ñuy jaar ñu gis ay nit ñu ba nit ñi ñu leen jaar leen fii fii mooy buntu bi ngeen dem xaw ma nag may laaj ndax baax na wala lan la. bu mu génn bu mu duggee génne na doom ji. waaw moom moo jëkk génn. Hmm. léegi nag mu gis euh, doom jaa ngi ci biir ndox mi. mu mu hmm. sëppeeluwaat. génne doom ji yéegaat génne doom ji yéegee doom ji léegi nag moom doom ji ñuy dem. Mhm. di tase benn góor ñuy wax moom jàpp euh, euh, kiiw leen euh, waxul ak ñoom dara ñu gis ay nit mu laaj leen fan la bunt bi nekk ñooñu nag leen bunt baa ngi nii jaam leen nii ngeen def mu ne foofu la yeewoo. baax na ci ñëw incha allah. waaw sa numéro laa bëggoon it. tey ligne bi ki ci régie bi jox la numéro bi léegi incha allah. Euh, mi ngi noonu 88 628 04 05 salaamaaleykum allo. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yéen bi ñoo ngi jégalu ñoo ngi nuyoo yéen ñëpp. yal na yàlla nangu ziar alhamdulilah. waaw ah, man de damaa géntoon euh, dem màkk ya. Mm-hmm. dama demee màkk ma ñëw wër barabu Rasulullah ba pare. nga. ma ñëw ci ba barabu Rasulullah bi bi ma koy wëtu siyaare mm-hmm. bi ma siyaare maa ngi dajeeg ay jigéen yu yor eh, ay tablati nen mm-hmm. muy muy ñaari jigéen di ko tarxe mm-hmm. ma <coughs> ñu jox ma ma ma bañ koo jël ma romb leen foofu ma doog a demaat ci euh, makaama ma Ibrahima ñu ma dikkee fekk ñu def rido bu ñuul ma yëkkati rido bi nii jalasoob bi bu xong la ma raay bi ni siyaare ba pare waaye bi ma génnee mhm. damaa gisaat jigéen ji togg ci wet gi mhm. waaye li ñu togg xaw lan la waaw waaw beneen bit ma tëdd guddi gént gi solo solo laay mhm. mu nekk ci benn île boo xam ne dafa mel ni comme ni weer di bindoo noonu la bindoo waaye ndox la léegi bi may wër di ko bëgg nuyu ji am ku ne ma wuyu sa baay Mm-hmm. bi ma yeewoo bi ma waxee wuyu sa baay nag foofu laa yeewoo. waaw mm-hmm. ah, man loolu laa gën a leer. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. baax na jërëjëf jërëjëf. shukran ma zilna fi intidaarikum xatta al an bi haadayni raqmayni xaalan ida tasaltum bina uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi ñu ngi lay ziar bismillah. ñu ngi delloo ziar bu wér. alhamdulillah. incha waaw ah, man damaa gént di dox. Mm-hmm. damaa gént ci dox génn sama suuf tànk yi. lan mooy génn sa suufu tànk. jiwee xaalis kayit kayitu junni. waaw mm-hmm. ah, ma mm-hmm. génn sama suufu tànk yi. waaw ma doxaat ba ci kanam encore. biir yu gën a bare bare bare génn sama suuf tànk mm-hmm. waaw loolu daal laa bëggoon ku ma ko leeralal mm-hmm. waaw jërë ngeen ci ñëw incha allah ci laaj boobu euh, ñu fàttali askan wi numéro yi 88 628 04 05 ngeen bàyyi ci xel salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw mbokk mi ñu ngi lay ziar di dolli ziar dama bëggoon wax tax ak bisimilah. dama gént ma génn sama kër. Mm-hmm. waaw ma dem di ñëw ma fekk ñi toj kër gi yëpp dama rasé. Mm-hmm. mais mais ci biir nit ne ma gouvernement bi moo ko toj dañu bëgg a def foofu poste tamit. Mm-hmm. ma laaj ana ñu nekkoon ci kër gi nag ñi benn jigéen ne ma ñu ngi côté bële léegi loolu laa xamul nu mu tekki. Euh, dinañ ci ñëw incha allah fa euh, fas yéene ànd ak yéen ci allo waaw bisimilah. allo allo. asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. Euh, waaw baat bi yëkkati ko woon tuuti ji gën a déggante bu baax. allo maa moom benn gént bu ma bëggoon a xam. Hmm. Euh, à chaque fois ma géntee damay gént maa ngi ci biir ndox. maa ngi ci biir ndox. wala waaw maa ngi à chaque fois ma géntee maa ngi ci biir ndox wala ma yu bëri bëri bëri ay jiw yu bëri. Hmm. ni ma mën a fexe ba comprendre loolu parce que su ma xaalis bi moo koy jënd du nekk ay wëccëg ay biir lay doon. Mm-hmm. loolu laa bëggoon xam. dinañ ñëw léegi incha allah. des fois aussi damay gént may sëy ay at mi. da ngay gént. may am ay rapport sexuel ak góor quoi. Mm-hmm. voilà loolu laa bëggoon dinañ ci ñëw léegi incha allah. 88 628 04 05 waaw allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. di ñaan di jaare di leen balu àq di leen balu àq di leen ñaanal yàlla defal leen ndam lu yaatu ci seen émission bi. amiin bi jaay nabil karim. Euh, léegi man dama faral di gént lu bare bare di nekk ci ndox li ëpp nag ci samay gént mooy daf may delloo ci. comme damay maanaa comme fa ma dëkkan nga xam ne boobaak léegi bañ fa jógee ak léegi mën na ñeent fukki at mm-hmm. dama fay faral di di gént mel ni damaa nekkaat ci kër googu mm-hmm. ci gént yi may faral li ci ëpp daf may delloo ci loo xam ne boobu ba ma ba ma ko maanaam bu dee ci kër war dellum defan ma ne boobaak léegi ëpp na ñeent fukki day mel ni ma may gént ci guddee tey gi mel ni ca kër laa nekk bañ fa ba ma ak léegi ëpp na ñeent fukki at waaw maanaam daal daf may delloo ci ginnaaw lu baree bari man man na ca loola lay dundaat. Mhm. ca kër googa lay dundaat wala jamono yee la ma doon def ca loolu laay nekkaat. Mhm. loolu daal laa bëggoon ak loo ko ci defal ak leeral. Mhm. voilà. jërëjëf ak ak lu bari di nekk ci ndox. nekk ci ndox. waaw li ci ak li ci def daal mooy. faral mel ni damay gént di ci kër nga xam ne bañ fa toxoog léegi ëpp mm-hmm, mm-hmm. di gis néeg yaag lal yanam bindoo nag mel ni daal foofa lay dundaat mm-hmm, dëgg la ci ñëw léegi insha allah shukran sanaati bi dalika xaalan may ma suma pare naa taal sa musique allo allo waaw bismillah salaamaaleykum salaam wa rahmatullah papa na nga def sant Ah, man dafa am benn gént bu ma géntoon temps yële passé war na am mm-hmm. ay ñaari weer léegi. Mm-hmm. léegi ma géntoon sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ci almakum. Mm-hmm. léegi man maay woon si benn néeg léegi bi ma nekkee si néeg bi après ma dégg ni ñi di wax ne sëñ Cheikh dafa dafa feeñ. léegi bi ma demee di seetaay ma fekk ko benn comme genre suuf suñu jur noonu. léegi am ndox mu ciy génn ak flamme. ci kaw ndox mi léegi bi muy génn nag après ma gis seen cheikh ci biir léegi bi ma yeggee nag mu yëkkati téere xaj am ma yett saalo la mu jox ma ko mu ne ma fii naa ko naa si jënd turu moowu roxoya mhm. ñetti moo si turu ñetti fan après mhm. noonu mu mu nekk jigéen après de si laa jug dem léegi bi may demee jënd bi man instant maa bitim réew léegi jënd bi yëpp ma si Sénégal man ma nekk sama kër tante may dugg nag ma takk sama doom mag. sama doom mag boobu dama ko mayoon benn téere xaaj am ma léegi nag ci la après moom ci laa wax nag mu daal di jël téere bi mun a ma lii na euh, yomb na parce que jaww sa ngay xaar mhm. léegi après foofu laa léegi fan yee dama géntoon. dam mhm. euh, sama benn kër bu nekk fii kooku di togg ceebu yàpp léegi bu ñu toggee pare nit ñi añ ba pare après ci wax ne moom daal. togg woon yàpp xar yëpp togg yàpp nag yàpp xaj la togg nee na. Mhm. léegi si laa ko la yow bi nga xamee la lu tax waxoo ma ne yàpp xaj la doon togg parce que yéen. a ngi mhm. bëgg mel ni waa dëkk bi comme ñoom ñi lekkee xaj man ma lekk yàpp xaj après si laay yeewu. Mhm. léegi temps yi passé dama géntaat encore benn liggéey si benn kër di téye benn xale. mais dama yegg si kër gi rek daa toj benn verre. beneen bi tamit man dama doon gént sama papa parce que sama papa avant ma juddu fekk moom génn na àddina xaw ma ko léegi ma génn benn jour ak instant boobu maa ngi amoon vingt cinq ans. Mhm. léegi bi ma amee vingt cinq ans ma gént ñu ne ma sa papa day ñëw dafa tukki woon mais day ñëw. Mhm. léegi bi ma génnee nag di xool fekk ñu ne woon mi ngi bi après allo allo. waaw. léegi bi ma gé- bi ma génnee nag nit ñi di ko teeru après si laa génn di xaar di xaar après ñu ne di ñëw léegi nag bi may xool mhm. ma gis ko mu won ma ginnaaw mu sol sa papa sa papa la. waa sama papa xaw ko mosuma ko gis que moom bi ma mhm. amoon lu may gént léegi temps yii passé ma dama géntoon benn jour. Euh, dama leen faral di. Euh, shukran wa ala kulli xaal sanaati bi euh, ñu bàyyi xel loolu xaarandi askan wi ci ligne bi ba tey xam naa ne dégg bi xaw a naqari rek ñu bàyyi ci xel euh, su ko defee ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom yónnee ko di laaj bëgg ñu indi ci ay bayaanaat Euh, bi ci jëkk mbokk mi neen dafa gént gént ku ko jaaxal neen dafa gént mu ànd xaritam nee na mu mel ni daal biiram day metti metti bu metti ba mu gi daal nee na mu dem àll ba ci ay yéreem muy sotteeku ci ay tànkam nee na gis na ci deret ci biir nee na it doon na ci jooy jooy yu metti Euh, dem àll ba baax na su taqee ci yow baax na bu sottee ko ci yow baax na waaye nag bi chartin ci condition condition bi mooy mu bañ a am deret ru'yatu dami qulna dalika miraran wa takraran addamu xuznun amiq wa diqun shadid fi xayaati l insan deretu guddi naqar la baaxul lu mu àndal lu nekk rek loolu day am jafe-jafe wala day am tolof tolof ñu bàyyi ci xel deret moom maa fi dami xayr du lu gën ñu bàyyi ci xel beneen bi mbokk mi ne dafa gént euh, gis sëriñ Abdul Karim Mbàkke nee na mu téye boppam di ko ñaanal ruyatu aalim wa saalix wa wa waliy min awliyaa illahi ruyatuhu fiiha xayrun ala kulli xaal gis nit yàlla mu ñaanal la nicmatun min allahi azza la euh, walla kunta fi diqin shadid doo nekkoon ci xat-xat day da ci génn soo nekkoon ci wéradi di nga am jàmm soo nekkoon ci di séentu lu jafe yàlla dina la ko yombalal bi ahsanil burjo euh, loolu mooy gis nitu yàlla bu baax mu lay ñaanal ñaan gu am solo euh, beneen bi nee mbokk mi ne dafa gént gis doomam mu war mbaam nes tuut mu daanuwaat ci suuf ak mbaam mi te moom gis na boppam war fas waaye gis na it ci boori fas yi gaynde goo xam ni geen gi dafa gudd alximaar mbaam war ko baaxul soo daanoo ak moom min akaabiril mashakil bokk na ci xarxat yi gën loo yootu day yéex loo sumb mu jafe mooy nga yéeg mbaam ànd ak maam mi daanu ma fi daalika xeyr immaa nag amaa nag góor gu war fas arrajulu alladi rakiba ala xisaan fa dalika yadullu ala zawjatin ne soxna lay doon an yakuna xaadiran kama yumkinu an yakuna fi mustaqbal mën na nekk léegi mën na nekk ci kanam waaye daal soxna la ala kulli xaal ndax war nga ko yéeg nga ci kawam soxna la nañ ci bàyyi xel beneen bi muy gaynde gaynde baax na gaynde xéewal la su la màttul song la defu la dara rek xéewal la ñu bàyyi ci xel bu baax beneen bi mbokk mi ne dafa gént ñu ne ko dañ lay takk gént ñu ne dañ lay takk donte yaa ngi ci sëy baaxul soo nekkul ci sëy boo ba moytul waxu ñu ne doo am borom kër waaye dina yéex loo sumb mu jafe loo yaakaar mu yéex luñ la digit doo ci gaaw a jot comme ni nga ko bëggee mooy azawaaj indal mara allati euh, lam tajid zawban baax baadu ala kulli xaal euh, soxna su amagul borom kër su géntee am borom kër wala ñu ne ko da ngay am boroom kër su moytuwul dana yéex ci moom bu fekkente ne nag am na boroom kër ba pare ñu ne ko da ngay amaat beneen borom kër wala dañ koy maywaat keneen loolu day tegtale ne moom borom àndandoo la na ci bàyyi xel baaxul ak it nee ne gis na ñoo xam ne ñi daal bu ñu tëddee guddi dañuy yuuxu rek di tiit loolu mbiri seytaane la tëdd di nelaw di gént di tiit mbiri seytaane la waaye day baax nag ñuy jàng wa samaay wa taarix xabla nawm suratun karimatun wa sharifa wa samaay taarix dafa baax xijaab mastuur fi xayaat xayaatil insaan dafa baax nga di ko jàng fukk ak benn balaa ngaa tëdd daf lay dimbali ci say yi nelaw seytaane du am ci yow yoon te du la mënal lu bari nañ ci bàyyi xel Euh, ñu ñëw nag kii neen dafa gént di dem mel ni kuy nekk ci beneen sëy ak ay sëram euh, mu ànd ak ñoom ñuy yuux mel ni dañuy jooy wala ñuy yuuxu ci guddi gi nee na loolu la gént gént di am beneen sëy wala di dem ci beneen sëy wax nañ ko léegi maa fi daalika xayr amma almaratu allati yi yuuxu guddi baaxul kii nag nee dafa gént tukki dem gàmbiya uh, muy béréb boo xam ne dafa mel dafay liggéeyi nee na mu dem ay agresseur sangu ko biñ ko songee nee mu am ku moo ci jàpp dem am fu mu ko dénkaane takk ko mu jugi mu di ko seet waa ji réer ko nee muy seet saagamit gisu ko mu jaaxle ci lool agresseur ci gént baax na soo génte ñu agressé la baax na soo génte agresseur baax na at wal machaqa wa diq shadid fi fi l xulmi yetagayaru gis nga xat naqar jafe-jafe ñi gaañ la wala ñu song la wala ñu fitnaan la fi l xulmi ci gént dafay soppali ku nekk yiw bu bari ci dundug doomu aadama Euh, beneen bi ci tegu mooy li muy laaj mooy day tëdd te du gént walla su géntee bu yeewoo fàtte ko gis nga nit ku nekk su tëddee dina gént des na nag nga jàpp ko wala nga jàpp ko jàpp bari aana kasiran mina naas li ëpp ci doomu aadama yi dañuy tëdd di nelaw yeewu du ñu jàpp seeni gént waaye nag dañuy sopp lool sooy tëddati guddi jàngal faatixa ba ci iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nga baamtu ko fukki yoon ak benn soo paree nga yëg sa kaw lal nga tëdd nga àggale faatixa bi ba ci wala daalin amin soo paree nga jàng aaya bi ñuy bëgg a wax muy bismillahi arrahmani arrahim wa indahu mafatixu lxaybi laa yaclamuha illa huwa wa yaclamu ma fi lbarri walbaxr wa ma tasqutu min waraqa illa yaclamuha wala xabatin fi dulumaati l ard wala ratbin wala yaabis illa fi kitaabin mubin nga jaan baamtu ko fukki yoon ak benn soo ko defee inchaa allahu sa yurika allah kulla ma turidu an taalam yàlla dina la won loo bëgg xam te di nga ko jàpp moo tax nit buy naaw dafa war a dénk boppam yàlla ala kulli xaal euh, ñi bàyyi xel nag liñ fi waxoon tamit lu am solo di ko baamtu saa su ne muy haatayni sadaqatayn ñaari sarax ngi ni am na solo muy mboq ak dugub mboq ñaari kilo nga ngi ci faatiha benn yoon iza jaa nasrullah juróom-ñaari yoon nga sarax ko ku góor dugub bi ñaari kilo nga jàng ci faatiha iza jaa nasrullah nga jox ko ku jigéen gis nga mbokk mi aajo boo am ci àdduna di ko lijjanti ji di ko doxi bëgg yàlla saafara la ci bëgg yàlla def ci xéewal del génne ñaari sarax yi waaye nag sopp nañu sarax boo koy génnee bul toog ba naaj wi tàng sarax daal bi ci gën mooy suba teel ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi dafay laaj moom it laaj bu ko jaaxal Euh, mbokk mi ne dafa gént soxnaam moo gént mu mel ni dafa ëmb dem ci boore tefes gi toog ba si yàgg gis ay jën nee na mu jékki-jékki rek biir bi di metti nee na ñëw bu ko hôpital mu am ñaari doom yu góor nee na mu dellusiwaat ñu ne biiram day metti ñu ne ko dafa des beneen mu dellu amaat beneen bu jigéen nee na mu ñëwaat mu mel ni biir bi dafa yëngatuwaat mu delluwaat amaat beneen bu góor mu nekk euh, arbaa naa mu nekk ñeenti jigéen mbokk mi sa soxna su amee ñeenti jigéen ci ci jamono yoo xam ne benn bokk ci ak moroomam yiw la xéewal la waaye it na ci bàyyi xel bés bu ko yàlla may njaboot ci biir njaboot gi dana ci am ñoo kenn ci biir njaboot gi koo xam ne kii ku yàlla nar a baaxe la waaye ku yàlla nar a jox alal la ci dundam nañ ci bàyyi xel lu am solo la lu baax la waaye lépp lu muy defati rek su dee sarax na ko def ñeent su dee ñaanit na ci jiital euh, raxmul arba muy chiffre kat am na solo na ci bàyyi xel bu baax dinañ ci ñëwaat gën ko ko leeral incha allah beneen bi ci tegu euh, kii ne dafa gént moom euh, bi loolu amee euh, ndaw si mer ne sama boroom kër waa këram kenn ñëw fi nee na mu dem moom it ñi mere ko lool ngir ñàkk ñëw bi ak ñàkk ko seetsi bi alxadabu xul naa zalika miraaran alxadabu faraxun alxadabu min assururi fi xayaati insaan mer guddi baax na xéewal la am na solo kii nag neen dafa gént jaan ju mag ci biir këram nee na xale yi jàng alxuraan jaan ji dem mu jaaxal ko lool waaye nee na moom gisee mënul woon wax jaan bu réyee ba ëpp baaxul mbiri seytaane la jàng alxuraan ci gént yiw la nañ ci bàyyi xel bu baax am na solo lool euh, beneen bi ci tegu kii nee na dafa gént euh, ay bëtam muuru mu dem ñu ne ko say bët danga dafa fa gumba gént gumba loo yaakaar day yéex loo am mu yàqu loo dugg mu jafe sa alal du toog ci sa loxo ni muy ñëwee noonu lay demaate naam mën naa bañ a doon sax gumba waaye nag sa yaatika dalika bi taabin wa mashaqatin wa diqin shadid dina la indil ay jafe-jafe yu doy sa wàllu am-am sa wàllu wërsëg ak sa wàllu dund eh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént eh, dugg ci biir géej gis rek bu mag requin baaxul bi gën mooy al asmaak jën yu ndaw yi moo gën requin nee na ba tey gént na ni dafay dox fi muy dox ndox kese la ba àgg fi muy toog foofu yi di génne almaa u yusrun almaa u fatxun almaa ndox wërsëg la alal la ubbeeku la nañ ci bàyyi xel loo am solo ngi noonu mooy gis ndox baax na eh, kii nag neen dafa gént ay xaj ak i xara ay xaj ak i xar nag moom baaxul waaye daal li ci gën a baax daal dinañ ko ko wax euh, li ci gën a baax mooy xar mi ay xaj bi moom min umuri shayatin mbiri seytaane la baaxul euh, beneen bi ci teg neen kii nee na mbokk mi neen dafa gént ku wéradi ñëw song ko maam ku leen ku dox digganteem ak moom dimbali ko ba mu génn ci nee mu jege fa toogaat mu am keneen ku jaaraat mu wax ko borom këram mu ne ko duggal ci biir mu dugg ci biir nee na ko wéradi gi dugg ci biir fekki ko ci biir gis nga nit ku wéradi ak a baax ci gént iza raayta rajulan naaqisal aqli fa dalika xayrun wa barakatun wa yusrun wa fatxun azim fi xayaati l gént nit ku wéradi su la dóoree baax na su la songee baax na su la nuyoo baax na su ñëwee fekk la nga toog mu toog sa wet baax na su ñëwee lu mu la manti defit jàppal ne yataxayaru zalika xayran ank dafay soppeeku loolu mu la def noonu nekk yiw bu bari muy la am solo kii nee dafa gént dem ci marché bi am di seet doomam gisu ko muy tudd yàlla rek naan laa ilaha illallah ah, tudd yàlla ci génti xayrun yiw la baax na ndax ala bi zikrillahi tatma innal xulub ci tudd yàlla ci la xol yi di daale ala kulli xaal kon di wax ci gént laa ilaha illa allah sayiduna muhammadun rasulullah nicmatun xéewal la am na solo lool euh, beneen bi kii ne dafa gis euh, sëñ Cheikh mustafa Mbakke nee na mu toog di lekk ak moom gis kilifa gu gu mel noonu nag ci gént Eh, ajo gu faju la boo wéree wéree woon di wér soo amoon soxla dana faju muy lu am solo lool beneen bi nee na dafa gént nekk bërëb boo xam ne bii mbedd la mu sumeeku du sangu nit ñëpp di ko xool sumeeku ci mbedd di sangu ñépp di la xool yaatika maradun xatir fi jismik eh, la dalay jural wéri di yaram allahu alam bu gaaw bu yéex bu teel bu nekk ci kaw yoon wi kooku dañ koy bàyyi ci loxo rabbu samawati wal ard waaye daal yar mu neen wéradi la fa ko defee baaxul nit ñi lay xool baaxul ñett yëpp benn ci nañ ci bàyyi xel waaye dañ koy digal rek mu togg ay ñam yu sell woo ay jullit sarax leen ko li wajhillahil karim kii nag ne dafa gént doomam daanu ci biir teen dugg jëli ko euh, ñoom ñaar ñëpp dañoo daanu ci biir seen moom mu génn doom ji génnul mu dugg dem jëli doom ji génne ko gis nga albiru makrun wa qadiatun wa taabun wa suubatun adida fi xayaati l insan teenu guddi baaxul teenu guddi nañ ci bàyyi xel benn baaxu ci war am na ci naqar am na ci jafe-jafe am na ci xat-xat am na ci eh, yi ci nekk yëpp kenn mënu ko wax nañ ci bàyyi xel su daanoo ci biir baaxul su fekkente ne doomam moo daanoo ci biir mu jële ko it maa fi dalika xayr baaxul dugg ci biir baaxul law kaana fil bi'ri ma donte sa ndox ngi ci biir teen bi maa fi dalika xayr du lu gën ñu bàyyi ci xel Euh, mbokk yi dañuy jéggalu lool xat-xataayu waxtu wi euh, ñu jéggalu lool xat-xataayu waxtu wi ñu dab ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax a baax lawla zalika dañuy ànd ak yéen ba ci kanam euh, ñu àndak ak yéen ziyaara mbokk yi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel saa ne ci waxtu wi ñu ngi ziyaara Jëlia Sall aminate Wat Soxna Ba Mati Ba Malick Ba Ndiku Fall Adama Ndiaye Euh, Mansour sar euh, ñu ngi li ngi leen di ziara Mouhamadou Mbaye Medina May Mujibou Lay Mody Ndiaye docteur Pouy Aminata Touré di ziara Abdourahmane mbake di ziara ba tey euh, waa Mauritanie ngi ziara Bachir baci ci Mauritanie ak soxnaam Thiané Thiané Diagne di ziara Cheikh Bara Fadlu Ndindi ak soxnaam Sali Mbacké ak Awa Mbacké ñoom ñëpp fàttewuñ leen Euh, waaye di ziare Salima Sam ci cinquième Nouakchott ñu ngi koy ziara bu baax di ziara Alioune Niang euh, di ziara ba tey ñi nga xam ne ñi ala kulli xaan ci waxtu wi dañuy bàyyi xel euh, di ziara Adji Sané ah, di leen di ziara Adji Sané ci Detroit aux États-Unis Adji Sané Detroit aux États-Unis Amérique Mouhamadou Moustapha Yale Roqeetu Diop Yof Ndagañ Daouda Dia Euh, Pape galo Badiane Adja Soxna Mati Diaw cité de magistrats ñoom ñëpp fàtte weñ leen di ziara Soxna Aram Mbacké ci Sacré Cœur 3 ñu ngi koy ziara bu baax di ko ndokkeel di ñaan yàlla yàlla may ñu gudd fan ak wér màggal gii di ñëw ñu teewe ko kenn bañ a manqué ñu jàllale fi yëgle boo xam ne bi ñëw na fi euh, sunu mbokk yi nga xam ne ay taalibe lañu ñu baax lañu di ànd ak ñun saa su nañ ñooy organiser journée salaatu tasbih ñu di ko def le euh, le premier novembre ci village bu ñuy tuddee Séré ci région de Louga euh, dinañ fa def yaa Latif junni defaat fa yeneen xayul euh, qayyum junni ak yeneen ak yeneen ci adiyaat yi façon ñaan yooyu yëpp dinañ ko fa def ci région bu Louga ci village bu ñuy wax Séré incha allah muy nekk le premier novembre. ci salaatu tasbix bu mag di ci woo jullit ñëpp ñu fekkee ko teewee ko bu jaahi nabil karim allahuma rabbi samaai wal ard wa nuuri wa zulmati wa dhilli wal xaruur yaa man ismuhu la yunsa wa nuuruhu la yutfa wa mulkuhu la yaxulu wa arshuhu la yazul wa kursiyuhu la yataxarraku abadan ilahi xaqiq lana amalana ya rab wa tammim lana niyatana waqdi hawaaijana ya rab ظاهرا وباطنا إنك على كل شيء قدير اللهم رب السماء والأرض laa tuxayib rajai wa rajaana wa rajaahum wa rajaa jamii almuslimin wa salli ala nabiyika wa xabibika wa rasulik salaatan taftax lana biha abwaaba alrida wa taysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alchar wa taasir wa taqdi lana biha jamii alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira ya rab ya ilahi anta waliyuna fa nicma almawla wa nicma alnasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin